Assalamualaikum wa rahmatullah mbokki yof ñu ngi nuy ñep di leen ziar bu baax a baax eh, di jéggalu te di leen ndokkel ci yi nga xamne yep mo fi jaar eh, ngeen may ñu rek ñu ko ñaan mu jox imam abdou karim mu defal ñu ñaan comme ça ñu mëna tijji jotaay bi imam bismillah nga def ñaan comme ça yàlla barkeelal ñu li ñuy def te yalla def ci ndam pour yoof Amin, eh, yal na yàlla nangul ñu Euh, ñuy jël suñu nuyoo euh, ñi di nuyo nak ñan la moy les membres de l'APEXI assignataires du contrat bi nga xamné mom lañu signé si turu APEXI té membre comité directeur bi yëguñu tinnuñu donc ànduñu si en quelque sorte euh, ñoñu ñoo dajé tay ji fi ngir waxtaan ak wa yof ngeen permettre ñu jël suñu nuyo jaarale ko ci kilifa yoof yépp jiital ci kilifa diine yi wàcc suñu ëttu maam sayidina limaamu nuyu xalif général des layen suñu maam dudu maxtaar mu nuyul ñu porte parole bi ak rakam ak mboolem jabot gi yépp waaye noonu la ñuy nuyu imam ratib bu yoof imam mohammed ndoy mu nuyul ñu ayima yi ak asatis yi nekk ci biir yoof yépp di leen jox seen wàccuwaay noonu la ñu ñëw également autorité administrative yi muy le sous-préfet ak le maire di leen jox seen wàccuwaay ku wax Yoff wax coutume ñu fonk ko lool mu nekk suñu dëjuwaay kon ñu ngi moo leen ñi yàlla dara jële tiituru jaraaf wala saltige mbaa ndey ji réew ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay di nuyu également ñi amee liggéeyu dëkk bi muy euh, Fray Yoff seeni mak njamburi yof ak ñi nga xamne ñoy magi yof mbollem seen ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baaxa a baax ah dajé won fi tay comme ni koy rek ah, lepp tamit ñu tek ko ci rafetal waye ci kaw deug mo waral sax xeyna li am nañu gisoon ne na gën tel tay waye mu melni ni si dox bi fuñ ci tollu rek ñu doon jima tënku ci kilifteef ñu ngi doon jéem a tënku ci rafetal waaye ku xuus ba ci baat donc lii war des fois ak fii jamono toll si désinformation ak sos ak yu ni mel dafay laaj nag léeg-léeg nga génne donc wax leeral loolu du yàq dara daje tey bi nag looloo ko wund ñu ñëw ngir waxtaan ak waa yoof ndax lépp dafay delluwaat ci yoof Euh, kon waxtaan wi nii lañ koy tëddee ni lañ koy tëralee ci ñeenti poñ rek lay lay tëddee euh, bi ci jiitu mooy président da baax muy premier vice président bu APEXI dinañu ñëwal ci genèse bi problème bi fi mu tàmbalee ak yépp dinañu ko expliquer incha allah euh, bu noppee maître Alou Diène nekk. secretaire général adjoint bu APEXI dinañu ñëwal ci contrat bi ak yépp yi nga xamante ne gis nañ ko si te mu nekk ay désavantages pour yoof pour yoof laa wax euh, bu noppee incha allah sama papa directeur Mbaye Ndoye dina ñëw si situation de léthargie bi nga xam ne ne moo am ci au sein de l'APEXI après nag dinañu clôturer ak suma papa maam Alsane mu nek euh, doyen ci CD apexi donc dina nous euh, ci defal ñu conclusion par rapport ak dajé bi nga xamné mo ñu fi taxa dajé tay kon sans plus tarder dañuy jox président Dabakh mu ñewul ñu ci président vous avez la parole. billahi Nous la suñu mbokk ñi ñu jàkkaarloon ñëpp à travers Ngor Plus Yoff TV Média Info TV ak euh, Vision Plus TV euh, nuyoo bi ndëkk euh, dañuy kay jaaral rek fii que bàyyi seenu jaaral muy kilifa diine yi ak kilifa aada yi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay ah di sant yàlla bu baax bi mu ñu mayee wér ak kàttan bu ñu toog fii di wax di baalu àq ñëpp ci koor gi ñu jógee di baal àq ñëpp li ñu taxa a yëkkati kàddu ndëkk responsabilité la rek ndax nit ku nekk lépp loo wax wala nga jëf ko ci kaw suuf boo deewee di nga ko layoo ci sa kanamu borom yàlla ndëkk daf ñu nattu ñu am ay responsabilité si biir APEX si war a jaayante ak suñu bopp suñu bakken mais aussi askan wi nga xamante ne ñoom ñoo ñu jox responsabilité boobu loolu moo waral taxawaay bi ñu am ñu ngi siy jéggalu ñi nga xamante ne ñëpp suñu ay mbokk wala suñu am di jàmm yoo xamante ne amaana dégg nañ wax joo xamante ne comme ni ko Baye Ousseynou waxee wax jo waxla ju rafetul ñu jëmale ko suñu der ñu ñuy di masawu kilifa yi ñu bokkal jataay bi muy suñu maam maam Alsaan Mbeng di suñu maître Euh, monsieur yi lañ koy wooye parce que doon nañu jàngal primaire mais aussi imam Abdou Karim Bey ñi ñu àndal si lii yëpp di présenter excuse u ñoom Baye Yahya Ndoye ñoom docteur Ngala ak ñi ngeen gisul si plateau bi yëpp parce que groupe bi gën a yaatu li euh, dañ leen di defar rek li nga xamante ne mooy genèse u euh, relation home choice ak si mu jaar si protocole wala contrat boo xamante ne signé nañu ko le 7 mars te signature bi dëppoowul ak ni APEX di doxee ndax ñun ñi nga xamante ne ñooy ay membre bureau wala membre CD signature boobu daanaka si lañ ko yëgee ndaxte coup de fil la ñu jot membre comité d'honneur di ñu laaj ndax euh, signature événement bi am APEX muy cérémonie de signature bi naka la demee bi ko yëgee si lañu àddu si groupe info CD APEXI wax yëgal leen ne am na signature bu ñu jàpp te CD bi yëguñu ko liñ si waroon a taxawee ndëkk taxawee nañ ko euh, ñëpp xam nañu ne AG APEXI ñu ngi ko defoon le 18 janvier 2020 suñu mandat expiré le 18 janvier 2023 contrat bi ñu ko signé le 7 mars. 2023 donc bu ñu xoolee rek suñu si wàllu période bi nga xamante ne signé nañ si contrat bi ah fekk na suñu mandat jeex donc loolu mooy lii jiitu beneen bi décision bépp bu ñuy jël comité directeur APEXI mooy l'instance wala l'organe de décision de prise de décision donc loolu contrat bi waxewuñu ko foofu naam am na ay waxtaan yu amoon si paras boobu ndax seen o bi mu fa jógee wala bi mu fa laa jóge sax APEXI amoon na ay mëbét parce que ñëpp gis nañu ne foofa ay bâtiment rez-de-chaussée moo fa amoon mu nekk ay manque à gagner yu bare bare bari donc seen SEN'EAU bi mu ñëwee euh, remplacer SDE contrat SDE jeex ñu entamer ay waxtaan ak ñoom pour def fa immeuble boo xamante ne mën na abriter siège SEN'EAU mais aussi keneen ku fa wërsëgam nekk pour yaatal li nga xamante ne mooy revenu APEXI ndax budget APEXI ñëpp xam nañ ne période boobu mu ngi tourner autour de 150 millions donc foofu nekkoon ay perspectives d'avenir donc loolu mooy li nga xamante ne moo moom la ñu nekkoon di liggéey ak yooyu yëpp depuis départu Sen'Eau donc ñu nekkoon di waxtaan si foofu nan lañ koy kiwee nan lañ ko mën a exploiter mu jural njëriñ Yoff donc si rencontre yooyu tegoon nañ fi même benn groupe de travail convié woon ñi nga xamante ne seen xam-xam màcc na si wàllu tabax mais aussi développement immobilier dañu woon fële si euh, sans incubateur Jaraaf Issa Mbeng pour waxtaane foofu nan lañ koy kiiwee donc si loolu euh, si la waa Home Choice ñëwoon Euh, Djibril Sile ziko Zico mo tassé ak ñom foire indi leen fii ngeen gis keneen kuy agité wu ne moom mo fi indi home choice moka ko moo home choice donc biñu dajé fofu ñu waxtaan xol offre yi ñu am parce que bari na après mam Alsaan dina si ñew donc offre yëpp ñu né dal nañu focus fofu ñu xol naka lañ fay défé un projet d'avenir si fofu lañu tollu won dakalé fa suñu waxtaan ak home choice donc. nekkoon dëkk ci dynamique pour préparer comme suñu ñu ngi woon ci fin de mandature naka la ñuy préparer def assemblée générale présenter yoofu ay rapport lu ñu ko liggéeyal yëpp si la le si 7 juin boobu si lañ jot ne APEX day signé contrat ñu ñëw waxtaan ak président bi si jours bi am na ay ñu fi nekk fii ñoo xamante ne wéet nañ ak moom ñaan ko pour mu bañ a signé contrat bi parce que du intérêt yoo fi nekku si te mën na jur coo mu may leen ko si biir waxtaan si bureau boobu bi ñu génnee mu taxaw ne moom moom mooy par exemple APEXI dina signé bi mu signé aussi ñun ñu xalaat lan la ñu yoon may mais doyloowuñu suñu xel si la ñu seeti benn avocat waxtaan ak moom présenté ko situation bi jox ka li nga xamante ne mooy taxi APEXI di statut ak règlement intérieur biñ ko ko joxee. mu ne ñu am ngeen ñaari option bii jiitu mooy ngeen dem procédure pénale porte plainte président bi dem ak moom si yoon justice mais loolu dama leen di conseiller ginnaaw ba ay mbokk kese ngeen bokk foo leen dëkk yoon woowu baaxul parce que mën na yàq seen mbokk ñu rafetlu ko ñooy ban yoon lañ amaat mu ne beneen bi mooy pour ngeen protéger intérêt Yoff contrat bi ni ko signé ni si anam yi baxul mënul valide donc def leen nañu bind benn notification ñu envoyer home choice wax ka li nga xamantene ne moo waral yépp ne contrat bi baaxul mais aussi président bi ngeen rappeler que à l'ordre bind que courrier courrier yooyu ñu envoyer que le 3 avril amuñu ci réponse lu dul kenn ku oo avocat bi ne présenté ou ne moom mooy conseil juridique bu APEXI ka ne genn si li nga xamantene ne la nek ndax ñun li ñuy def yefi guni la ñun aussi topp ñu suñu bop ñu ne ah sans doute dina rëccumtëkku dina rëccumtalu si lolu ñu dem ba mois de juillet ñu romba gis ne toj nañ bâtiment bi nga xamantene ne fi SDE bi nekkoon di l'objet de ce contentieux ah fofu ndëkk ñu gis ne bay wéy na mbuus li ñu man mooy taxaw pour préserver intérêt de dëkk bi parce que terme contrat bi après maam Alsaan ma si ñëw mais contrat boobu duñ ko bàyyi mu jàll si la ñu demaatee waxtaan ak avocat bi mu ne man nañu entamer une procédure au niveau du tribunal commercial parce que affaire contrat la si lañ defee assignation boobu au niveau du du tribunal commercial pour ñu invalider contrat bi donc loolu mooy li nga xamante ne moom la ñu def ah am nañ dëkk ñu nekk si dëkk bi di wax lu nekk nee nañu dañu jóg pour tas APEXI ñii nee nañu euh, dañu porter plainte Yoff jaareel ko ci APEXI ñii nee nañu dañu porter plainte président APEXI loolu yépp du lu am donc président bi mu wootee woote na fi mu daje wax loolu am nañu jóg ne dañ siy dox tànki jàmm ñooñu aussi bi ñu jógee li ñu jëkk a ñaan mooy bu ñu def point de presse moo tax depuis lors defuñu point de presse ñu toog déglu ndigal ñoom nag dox nañ ba fi ñu yem ñun tamit ñu ngi toog di leen déglu booba léegi tase nañ ak ñoom ay yooni yoon am na këyit gu ñu pour indil def si ay conditions mais ñun li ñu leen wax mooy condition bi jiitu moy dañu annuler d'abord li nga xamantene moy le le contrat bi dox entre Home Choice ak APEXI donc loolu moy li nga xamantene moy liñ ci dox donc depuis lors nag ñu ngi tok APEXI def na un an ngi ni defuñu réunion de bureau defuñu réunion de CD du budget bu voter lu dara am nañuy développer am nañuy dépenser li nga xamantene moy budget di exécuter Amna, amna, amna. peut-être euh, kilifa gi après dina donc de manière ramassée li dal moy li nga xamantene moy li ñuy wax APEXI euh, assignation bi liñ wax liñ que a jaar jaar nañ fa donc pour waa dëkk bi xam information bii jiitu mooy du porte plainte ou nous APEXI parce que si APEXI lañ bokk dañ femme am est responsable porte plainte ou nous président APEXI parce que suñu kilifa la suñu wayjur la li ñu def assigné pour dénoncer contrat maintenir. xamante ne signé nañ que fekk suñu mandat jeex sans l'approbation du commité directeur qui est l'organe de décision donc loolu mooy li nga xamante ne moom la ñu doon ñëw vraiment ci contrat bi euh, li nga xamante ne moo si nekk di clause yi ah yi si aju euh, mam Alsaan Diène dina si ñëw donc faram fàcce ka ñu xam réellement lan moo nekk si contrat bi ah lan yan risque la dëkk bi di courir donc di tàllal loxo waa dëkk bi yëpp. mak ah ndaw goor pur jigen pour ñu taxaw ci li nga xamantene mak ñi ñoo ko fàggu fàggul ka génération yi di ñew ñu taxaw si ba del préserver ke ba njaboot kep ko xamantene war nga ci bénéficier nga bénéficier aussi si moy won cadeau yi di vraiment jéggalu ñep di balu ak ñep allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallim ngeen baal ñu wax donc euh, jërëjëf euh, président Dabakh mu mel ni kàddu euh, yi am na solo te leeral na lu bari aussi euh, li si jiitu mooy wax ne euh, contrat bi ñu ko signé le 7 mars alors que suñu mandat mu ngi jee donc depuis janvier bi si topp mooy contrat bi également bi ñu koy signé CD bi yëgul tinul lu dul ne la veille muy le 6 mars 2023 midi ci euh, panel bi nga xam ne ni mooy info CD bu APEXI ci lañ ko dugal mu am ay réaction am ñu ñaan ne lii xaju fi est ce ñii ne kon bu dee dafa jàmp sax ba jàmp ndax du ñu réunion si guddi gi même ou le matin avant que ñuy dem 17 heures diñ ne si lañu ko fas yéene woon signé yooyu aussi tamit ay de taille la yoo xam ne ne bëggoon nañ ko indi ci li nga xam ne ne daa baax président leeral na ko bi si topp également mooy batiment bi nga xam ne ne détruire nañ ko euh, muy si site bi foofu noonu batiment la boo xam ne biñ ko euh, bi bi mu fay nekk mu ngi woon en très bon état donc euh, nan lañ ko détruire aussi tamit ñi kan ax kan moo ko tojax sañ-sañ bi mu si am ak yooyu noonu yëpp également ba fii ñuy waxee ni lu umpa CD APEXI la donc loolu ay élément la yoo xam ne aussi tamit on tenait à à l'apporter ci euh, li nga xam ne ni moom la daa baax wax donc euh, maître Aliou Diène ñëwal ci clause contrat bi ak ses limites ak lu pourquoi ñu attaqué ko donc kon Aliou Diène vous avez la parole. a'uuzu billahi minash shaytaani rajiim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 ñu ngi sant yàlla bu baax di julli di mal si yonente bi salallaahu alayhi wa sallam donc di nuyu waa Yoff gépp donc du ma lim ñi ma jiitu ni ñu ko waxee di sof sama nuyoo si nuyoo biñ fiy def

muy une procédure ba nga xamante ne euh, régulièreul c'est irrégulière parce que en tant que association dañu tënku ci ay loi réglement mais suñu statut ak suñuy règlement intérieur donc ñu signé procédure bi ñu ko signé mu opposé wu mu wuute ak ni nga xamante ne texte yi ñu régir noonu la ñu waxee la ñuy doxee donc loolu muy sur la forme de signature li ñu signé contrat bi donc beneen bi aussi mooy sur le fond du euh, euh, du contrat dama si jël quelques aspects rek pour faire une petite comparaison pour que ñu xam ne li ñuy wax wala li ñu position bi ñu am amuñu ko si lu ñu neex si euh, topp suñu neex yaay bakken wala liñ ci am loolu moo tax sax sànq bi may commencé ma commencé ak benn bayt bu Seydil Hadji Malick si wax parce que li ñuy wax waxuñu ko pour am si lu ñuy ragal. waxuñu ko aussi pour am ci top suñu bac bànneexu bakken mais aussi waxuñu ko pour am ci xaalis donc dañ ko wax rek pour préserver les intérêts de Yoff donc te fenen fu mu doonoon ñu bokku fa aussi bu lu melni taxawé ñu am ci position bi ñu am ak ku mën ak kenen ku fu mën am benen benen position donc li ñuy def defuñu ko pour am nombre c'est pas que le nombre qui compte buñ fi nekkoon ñun ñett wala kenn rek je pense que euh, c'est un combat de de principe donc c'est pas que né am nañ 100 personnes, voilà, nous sommes ou pas. Ça, c'est un peu peu. Nous sommes là parce que nous pensons que l'Union est de te bu ñu dëgg dawee aussi ñu dal ñu donc aussi c'était des préjugés à faire donc concernant le contrat nous avons signé effectivement le 7 mars donc avant le 7 mars nous avons eu pour parler pourparlers Mais nous mais eu un accord donc nous avons sama accord le 6 mars si la ñu envoyé message wax ñu ko ne suba dañu signer le contrat alors que pour toutes ces décisions ya nga xamante da fay jëm ci yu melni c'est le comité directeur mo wara réunir euh, valider ko sur PV lolu amul donc avant boobu aussi ñun ñep ku si nekk am ngay position taw wax nga ko dans ci panel bi nga xam te si bokk pour alerter pour euh, lu melni baña am li fi am ñep waxon nañ ko mais malheureusement nous euh, continuer ci procédure bi ñu nekkoon ba signé ko te ba tey jii wax signé aussi en tant que membre du CD et du bureau on a demandé à ce que le contrat ñu jox ñu ko te ba tey bi may on n'a pas reçu officiellement ce contrat Ce contrat a signé plus d'un an man may secrétaire général adjoint que le premier vice-président est le secrétaire général est le trésorier général euh, adjoint ak membre CD bi amul kenn ku le contrat officiellement mais nous dañu nek ci deug on a des des moyens pour effectivement lu ñu bëgg am ñu am ko mais on a fait ce que nous devions faire ba am contrat bi si yeneen anam on a ce contrat donc biñu exploiter aussi le contrat parce que l'état avant ça nous am contrat bi ñu agité wu ñu agité wu ñu parce que si procédure de négociation yi nekkoon terme yi nekkoon contrat en tout cas le euh, projet de contrat bi dernière version yi ñu am donc li fa nekkoon ça a été en déphasage avec les entrées de l'offre. donc rien nañ rek les deux avocats tomb d'accord nous avons te la dernière mouture du projet de contrat mais effectivement bu ñu le contrat signé contrat bi nous ko signé pour une durée de 20 ans Nous avons une obligation pour renouveler ko lo renouvellement bi 10 ans donc japp nañ un kon contrat bi minimum c'est 30 ans contrat 30 ans sur terrain ba nga xamantene route de l'aéroport route un terrain de 1600 m2 plus de 1600 m2 ñu def ci contrat bi ne ñu ngi koy loué ak quatre millions de francs CFA pour une durée de trente ans pendant ce temps mu am terrain ba nga xamante ne APEX moo ko moom fii ancien Saint rek nekkoon di mesurer quatre cent soixante mètres carrés si même lii lieu bi si même site bi ñu am si euh, négociation boo xamante ne dañ koy loué trois millions cinq cent francs CFA donc bële mille sept mille mille cinq cent mètres 4 millions 460 mètres carrés 3 millions 500 francs CFA donc vous comprendrez aisément que affaire l'omatone. donc vous aussi mon contrat bi dénoncé 30 ans lañ pour. 20 euh, ans plus 10 ans mais 30 ans pour 4 millions de francs CFA mensuels alors que contrat c'est Sénélec bi fi 460 mètres carrés 3 millions 500 francs par mois sur 5 ans donc loolu ñun en tant que en tant que membre de l'APEXI ñu comprendre ñuy brader suufi sur 4 millions de Français pour 30 ans 30 ans ñun man mii di wax xëy APEXI ah, mon frère Baye sur 30 ans nous avons fi un bàyyi de ak salaam ñun dañu retraité un ñu am plus de 60 ans mais pour 30 ans sur 30 ans loolu lañ signé loolu compara comparaison yoy ñaar yoy non rek fu man lolu doy na pour que ne effectivement ne amna lu ci jaaduwul parce que lo xamantene ne triplé na benn espace te mu am une différence de 500 millions cinq cent francs CFA mais lolu ça pose problème lolu kep kuy défendre entre Yoff war nga taxaw nga ne nañ ko nañ ko xolat lolu ben la ci li nga xamantene mo tax ñu ne nañu xolat contrat bi moy d'abord sur la durée moy sur le montant benen bi aussi Euh, contrat bi aussi dafa am si clause yi kenn des signatures dañuy dugal cinquante millions de francs CFA cinquante millions de francs CFA yi ñun ba tey ñuy wax xamuñu ndax dugg na duggul mais jàpp nañu ne dugg na mais ñun on a aucune pour que ne pour parce que en tant que membre du bureau informé wuñ fenn que dugg na mais jàpp nañ ne na xam nañu ne dugg na aussi te si contrat bi ki ñu moom moo koy tabax moo koy tabax donc cinquante millions yooyu noonu xam ne daf na ko avance ak bu paree bu defee moom bu liggéeyee ba pare day def estimer li mu fa def loolu la ñuy boole li mu fa def ak cinquante millions yooyu noonu dañ ko koy daggal donc fu weer au lieu que mu fay 4 millions de francs CFA fay dugal 2 millions de francs CFA donc li nga xamantene mom la ci def muy le montant total ak 50 millions de francs ñu pour vous dire que donc pendant toute la durée du contrat ay par euh, euh, par par moitié la fayeku donc si nous xamantene rien ne nous prouvera l'exactitude des montants qu'il aura avancé. même si dañuy teg benn comité boo xamante ne euh, dañ koy teg sur place mais rien parce que ku dem bay signé lii ñun jàpp nañ ne vraiment kooku sañ na leneen loolu aussi muy doon loo xamante ne tax na ñu ne du ñu du ñu contrat bi baaxul baaxul euh, beneen bi mooy euh, si disposition contrat yi dama si jël beneen rek du ma parce que y a beaucoup de à dire mais si contrat yi dafa dañ si wax aussi que APEXIS si jamais bu demoon bay am problème wala bu demoon bay jaay terrain am kii mu signal contrat bi nii kooku la koy jaay par force moo koy jaay loolu moo nekk si si si si si si si contrat yi muy clause de préférence ñiy def droit administratif droit foncier droit di ko wax euh, droit de préemption bu xam xamante ne état rek moo koy am droit de préemption donc c' est à dire que te si statut APEXIS dañ ne APEXIS bu demoon ba am problème. benen association bu nek bir yoof patrimoine apex mo koy jël man na don Fra Yoff mën na don jambour yoof man na don benen association xamante ne yoof la moko mom ko defé patrimoine yoff patrimoine apex du génn bir yoof mais tey ni jamais si jamais bu ñu amoon un problème bay jay le terrain nous serons obligés de vendre le terrain ki nga xamantene moñu mom ñu moom lañ signé contrat bi quel que soit le prix donc, vous comprendrez aisément qu'il y a un problème. Donc, l'eau, moi, est taillé. Il fait avec Donc, c'est euh, aussi. Parce que nous sommes dans le cadre des affaires. Nous sommes dans le cadre des affaires. Nous sommes dans le cadre aussi dans le cadre des affaires yan relation lañ am donc on peut faire on peut créer des problèmes effectivement forcer à l'APEXI à ce que euh, lii mu mu dans situation de xamantene dañ koy obligé sax pour mu jaay terrain bi alors que bu obligation nous est donnée de vendre le terrain à cette à cette à cette société là et que aussi dans le contrat on donne autorisation société bi suba mu tabax ko bu ko neexee mu am benn filiale wala yeneen partenaire société bi si boppam mu luwe ko wala mu jaay le contrat sans pour autant amul problème loolu c'est dans le contrat donc loolu kooku ñun on pense que ni kooku dafa ñëw pour liggéey suñu xaalis tabax suñu euh, jël suñu terrain def si investir si am yeneen offre yu gën a yu gën a baax parce que effectivement lii kuñ ko loué 4 millions par mois effectivement boo paree mën nga ko am le double ou bien le triple donc mu def une affaire alors que comme si il e y' a pas de personne qui maintenant ce projet mettre le montage financier ça peut prendre en charge tout donc aussi beaucoup si vraiment le contrat là donc je pense que par rapport au contenu du contrat je peux me limiter sur ça mais il y a d'autres choses à faire à ah, xamante ne contrat et vous les ñoom li ñuy wax ils n'ont qu'à publier le contrat et les yow fois vont apprécier xam li nekk ci contrat bi ba xam li ñuy wax wuute na ak li nga ci contrat bi donc eh, pour terminer d'abord baax wax tout à l'heure on a assigné le contrat pour que le contrat ñu annule. ko loolu la ñu à Taïdini, à APEXI peut-être am dina am ku tout à l'heure euh, plusieurs voies nous ont été ouvertes amone plusieurs voies, mais on a tendu la perche malheureusement ils ne l'ont pas saisi pour que nous puissions, te peut-être buñu le problème là fi ñu dina dina dina dina dina parce que aussi il y a d'autres procédures yo xamantene ne mën ko tek et sur beaucoup de choses yaa nga xamante ne mu ngi si APEX mais là nous demandons à tout un chacun de nga revenir à la raison de revenir à la raison pour qu'effectivement nous préserver les intérêts de Yoff et les intérêts des générations à venir donc di wax aussi que l'union c'est une responsabilité individuelle on a tout à l'heure on n'a pas besoin de 100 personnes ou de 10 000 personnes pour porter ce combat-là c'est une responsabilité individuelle mais c'est une responsabilité historique parce que l'histoire retiendra li xew fii nii bi ñu taxawee pour bazarder les entrées de Yoff les gens étaient euh, dañu tëjoon seen gémmiñ wala dañu pour des intérêts particuliers wala personnel wala individuel ñoo xam bu ñu am tax na ñu gëm wala ñu ñuy favoriser ñuy si ñi di bokk ànd ak ñi nga xamante ne ñooy bazarder les entrées de Yoff donc en tout cas c'est sur ce terme que je voudrais ter euh, euh, terminer mais samay sama sama intervention par rapport à cette à cette euh, à ce point de presse donc xam naa lu si manqué ñii di ñëw après dinañ ci dinañ ci dinañ ko complété in uridu illa islaha mastataatu wa ma tawfiqi illa illa billahi wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu euh, jërëjëf euh, maître Alioune Diène donc kàddu yi am na solo te feeñal na lu bari waaye aussi leeral na lu bari Euh, liñ ci euh, retenir li si jiitu mooy euh, comme fi nga daanile te fa nga tijjee woon mooy on n'a pas besoin peut-être de de de de de de dix personnes ça pour mën dénoncer li mais aussi pour mën a xeex ko kenn nit rek doyna na si donc pour def ko. Euh, et que aussi di signaler que euh, ci nga engagé c'est une responsabilité individuelle mais aussi c'est une responsabilité surtout historique comme mais aussi une responsabilité communautaire parce que au-delà de l'individualité tamit lii ñu tax di revenir directement à nous. mais communauté bi moo gagner donc nous devons pouvons pas gis c'est important à préciser L'année dernière, euh, li moy feeñal nga ne dañu am lu ñu ancien euh, ancien siège bu SDE donc mu nek une surface de 1600 mètres carrés à côté mu am aussi fuñ tuddé ancienne Sénélec mu nek que 400 et quelques euh, mètres carrés nga am une proposition feulé na 1000 et quelques nga am fa 4 millions comme proposition alors que le car bi nga am à à ses côtés juste à côté juste à proximité yaa ngi fa mën a am 3 millions cent yoo xam ne CD bi si seen bët fi ñu ko tegoon d'accord ñu si woon te loolu jurul benn coow CD bi ñëpp ànd nañ ñàkk d'accord si proposition de 3 millions 500 bi nga xam ne mënoon nañ ko am sur une surface de quatre de de 400 mètres carrés ba pare ñu bëgg a jël une surface de 1600 mètres carrés bëgg si am 4 millions loolu loolu loolu loolu. je pense que ni aussi terre à terre que ça rek war na mën a tax ñu ne noonu bi si topp mooy yaa ngi koy wax euh, ci biir contrat bi mënuñu fi nekk peut-être di étaler yëpp moo tax lenn defi benn rek lañ am si si si sa si si si wax ji euh, metre Diène wax mooy que ñoom ñu publier le contrat yoo yi man si am une appréciation loolu lañ on les invite à ça beneen bi mooy ci yi nga xam ne ne am na si Kolda te mu feeñal ko mooy le fait que ñu ne bu ñu demee ba problème am képp lépp loo xamante ne yoo ko moom muy yeneen structure yi amuñu possibilité mën a jënd loolu noonu mais ki nga xam ne ne moom lañ signal contrat mooy moom rek dong cundung moo ko mën a jënd beneen bi aussi je pense que waxoo ko mooy Euh, ci vidéo yi ñu gis ci signature de contrat bi gisuñu ba léegi la personne morale biñ signé bi Yoff bëgg signal pour 30 ans ba léegi tegul tànkaam ba léegi kenn xamuñu ko ñun nag def nañ si ay gëstu moo tax am na loo xamante ne fi ñu jëm yaa ngi koy junj allons yi rek ñaanuñu nekkuñu si dinaa mugu weerante walla wala xalante wala nangam mais. amna ne xamantene buñ ci excès daf koy jar ñu ngi si mais ba fi may wax ak autorité dëkk yi pour signer le contrat qui fa donc ñom ñu japp ne mom bi muy tarxis na wax wax responsable moral allez regarder encore vidéo wu de contrat c'est important à préciser bi pour euh, koy wax gis ne. ba pour wax ne ñu ngi continuer toujours di di di di di di peut-être man bëgguma utiliser moo boobu noonu je maa ngi koy retirer comme génnagul mais foofu noonu ba sànq gis naa ne sax ñu ngi koy exploiter parce que actuellement ñu fa dugal ay pneus c'est un constat loo xamante ne ku dem fekk na ko kenn xamul ba léegi nii loolu lu ko war la chose aussi xam naa dina ñëw après si léthargie bi nga xam ne mu ngi fi am actuellement te foofu laay la parole sama suñu euh, directeur euh, Papa Mbaye bu si ñëwee après bu ñuy revenir ci li mu wax dinañ dugg ci importance su euh, groupe boobu ñu amoon tamu mu tudde info séeréer te jàllale te si lañ profité woon informé CD bi que ne suba suba suba dinañ signé contrat bu jëm 30 ans ak des avantages si nekk loolu dinañ ñëw ci groupe bobu nonu fan la mujjé inshallah allah après euh, exposé bu sama papa Mbaye ndoy kon vous avez la parole pour situation léthargique bi nga xamanteni ñu koy dund. auzu billahi mina seytaan rajim bismillahir rahmanir rahim. yal nañu yalla may tambalé bismillahir rahmanir rahim jeexale alhamdoulillah rabbil alamin may nuyu mbooloo mi fi teew yépp di leen sargal di leen encourager surtout ñaari exposé yu leer yi nga xam ne wax nañ ko fi ñu nekk ay xale yoo xam ne xale yu bëgg dëkk bi lañ xale yu am xam-xam lañ xale yu engagé wu lañ moo tax ñu ñi nga xam ne ñoo leen di magal fu ñu toog bu ñu gëstoo war nañ ñu gis seen wet ndaxte problème dëkk bi rek moo leen ñor li ñuy dajale tey dafa laaj ay leeral parce que boo demee ci yenn euh, panel yi di nga gis ñu ko fay junj rek mais ñu leeral nit ñi lan moo am donc tey war nañ leeral leen parce que ñun ñi nga xam ne ñoo nekk CD APEX yi yóbbuwuñu fa suñu bopp suñu ay quartier ñoo ñu fa yebal ñu daje fa ba nekk soixante personnes constitué le CD tey problème bii am tey bu fekkoon ne APEXI mu ngi dox na mu war a doxe problème bii du am moo di loo xam ne dafa war a impacter génération yi nga xam ne ñoo ñëw d'ici trente ans ba romb ko bu ci APEXI du dugg dañ ko war a waxtaane ba Yoff gépp xam lan moo am buñ ci jógee ndigal ñu door cee dugg mais ña nga xam ne ñoom la APECSY jële ci quartier yi ñi nga xam ne ñoo ñëw ci APECSY seen quartier yi indi leen fa lii xaw ci APECSY duñ ci rendre compte seen waa quartier yi buñ doon dem ci quartier yi di leen wax donc lii am tey nii buñ ko waxtaanee woon ci dëkk bi yëpp defe naa du am te APECSY na muy doxe bu ñu ko jubbantiwul problème yu mel nii du fi géej loolu constat bi ñun ñëpp def nañ ko ci CD bi ñoom ñu def seen audit externe audit bi ñëw wane ne APECSY ni muy doxee dara baaxu ci ba APECSY nekkee APECSY ba léegi donc jëfe naa tey bu ñu amee ñoo xam ne am nañu xam-xam bi am engagement bi war nañu mën a taxaw tey ba APECSY di dox na mu war a doxee ñi ngeen gis ñu toog fii. lu jaral leeral moo di ne dañuy wax ne ab waa Yoff bu yóbbu waa Yoff tribunal kenn yóbbuwul kenn tribunal ab contrat la ñu gis boo xam ne tey bu ñu ko signé dawal ko génération yi ñëw danañ leen lor te danañ ñu mere donc suñu obligation tey mooy ñu taxaw ci ba nga xam ne dara du lor yoof li ñuy def yépp mooy luy jariñ yoof rek loolu rek moo ñu tax jox du leneen ñi ngeen gis ñu toog fii bureau apex yi sept personnes lañu ñent ci ñi nga xam ne ñoo ngi ci bureau bi ñoo ngi toog nii tey donc loolu war ngeen ci def ay jàngat ñent si sept ñent ñi fii lañu toog nii ne lii du yoon du dem parce que ñoom it xamuñu dara ci lii xaw ci apex yi waxatuma laa nag ñun ñi nga xam ne ay membre simple lañ ci CD bi donc seen taxawaay vraiment ñu ngi koy rafetlu bu baax te ñoom bàyyiwuñu sax ñi nga xam ne ñoo leen assigné mais ñoo ngi def ay pexe yu nekk di leen wax ñëw leen di leen xëcc ci ñoom ñenn ñu di ñi di leen essayer guerre mais taxawaayu yoof rek lañuy taxawe taxawee am na loo xam ne du am mukk amoon nañu groupe boo xam ne groupe whatsapp la bépp information boo xam ne day jëm ci réunion yeeg lépp lu xaw si APEX si lu war a APEX si war a def lu mu war a engagé fu mu war a dem teew dañ ko fa daan dugal ñun ñi di si wax seen xalaat mais depuis ñun ñii nga xam ne ñoo taxaw ne lii ngeen nar yoof nii baaxul ñun génne nañ ñu ci groupe boobu kenn bokkatu ci kenn amu ci eh, benn information pire encore xam nañ ne lu ñu nekk nii bu dëgg a jubee rek musibaam ñu ne léegi nañ ñu fexe ba génne leen ci surtout ñi nga xam ne ñoo bokk ci bureau bi il y a moins de trois semaines rek ñu convoqué benn CD boo xam ne ñun ñi ñëpp kenn convoqué wuñu ci te la ñu def si seen ordre jour CD ba daf ci bokk ñu remplacer ñi nga xam ne si bureau bi la ñu nekkoon te nekk fii te loolu nga xam ne kenn xamu ko kenn xamul lan la te ba ñu koy def dañu indi huissier. mooy naroon dëggal ni ñi remplacer nañ leen ñu fi mu nekk bon danañ am les mains libres pour seen contrat boobu ñu taxawal ko wëyal ko yàlla def na loolu comme ni ñu waxee rek dëkk bi loo fiy def rek nit ñi dinañ am ay information ba ñu ko yëgee ñun ñu ñëw taxaw ne leen loolu du fi amee ay kilifa dëkk bi aussi jog ñëw ànd ak Fra Yoff ne leen lii mënul nekk

na ñëpp a jox pour ñu jubbanti parce que boo demee ba sa mandat di jeex je crois que bi suñu mandat jeexee ak léegi mu ngi bëgg a dem un an contrat bi bañ koy signé fekk na suñu mandat jeex sa mandat buy jeex waratoo sax engagé yenn dépenses yi. bu dul dépense obligatoire salaire kenn waratul engagé mais ba ñu ne nañ dem CD nañ dem assemblée générale rek la ñu xamatul lu ñuy des ñu ne bu laa dem assemblée générale nañu defar texte yi texte yi defar nañ ko bu yàgg. ñu ne buñ laa dem assemblée général nañu signé man bañ koy wax leen tant que signé leen ba xaalis bi dugg kenn du dem assemblée général mais fi mu ne xaalis bi dugg na cinquante millions yañ leen jox noonu mais defe naa ne doyalaguñu sax. doyaluñu sax te cinquante millions tey woo ne ma ne boo duggoon compte APEX yi góob ne di nga fa fekk ab dërëm fi mu nekk nii donc lii jot jot na taxaw jot na ñun daal li ñuy tël moo di. na yëf delluwaat à normal normale APECSY organiser assemblée générale am ñamuy fal ndigum problème am na fi régléegul ba léegi ñooñu bu ñu ñëwee problème ba fa nekk war nañ ko mën a régler mais daal dem assemblée générale ak lu leen rey la ñu yemaale te waa dëkk bi diggoo ma ne dinañ nangu loolu yéen daal yéen a ñu fa yabaloon ñu ngi leen fay taxawal na nga xam ne yaakaar nañ ne noonu lañ leen fa war a taxawale donc maintenant waa dëkk bi yéen yéen a war a jox xam ne APECSY kat alalu yoof la ndoon na la dañ koy donnante génération yi ñëw war nañ fi fekk lu weesu li nga xam ne ñun moom lañu fi def donc daan ci gàttal ñu ngi woowaa dëkk bii yépp ñu delloo taxaw ñu delloo APECSY fa mu nekkoon ñi nga xam ne tey ñii ñooy dox pour APEX si jaar yoon ñu encouragé leen allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam euh, directeur Mbaye Ndoye ci kàddu yu am solo yu leer yooyu noonu euh, te bu ñu ko euh, déggee xam ne lenn rek mooy yitteel ñi nga xam ne ñoo fi toog mooy que yëfi yi demee ni mu war a demee maanaam yëf yi jaar si yoon amul benn Euh, mbir bu animé kenn ci ñi engagé wu fi lo xam dafa jëm si bopom et pour préciser donc di wax né waxuma man dé waye bari nañu engagé wu fi ño xam dé ni li nga xam né droit la sax ci ñom té taxi may leen ko ñom nañ ko apexi donc ngir bëgg mu yaxan rek ngir bëgg mu jaar fenen donc ta droit la manam ci ñom mais bari na fi ni motax bu ñuy xalaat euh, lu nit am donc mën nañ ko xalaate si ñeneen ñu dul ñi nga xam dañ engagé pour assignation bi nii euh, bi ma bëgg tamit préciser mooy par rapport ak contrat bi contrat bi toujours il est important ñu fàttali ne contrat ku koy signé surtout si yu mel nii di nga wax kii nga amal contrat bi li nga ko loué

Euh, sama euh, papa directeur Mbaye Ndoye mu ngi koy wax léegi importance groupe boobu nga xam ne ni bañ naka ba ñu ngi ko tuddee info CD APEX donc fa la ñuy jaarale. Euh, yëgle yi nga xamante ne moo jëm ci mbir APEXI pour ñi ñi mën koo xam mais depuis contrat bi jokk nit ñu commencé di si wax di si trouver ay di si jima ut ay solution ak yu ni mel si groupe bi lañ nekk kàpp tëj boobu ba léegi xamuñu lu si xew am nañu ay écho comme quoi que am na yeneen panel yuñ créé seen bopp génn ñu seex am nañu loolu mais si dégg-dégg rek la lañ si am mais en tout cas amatuñu information boo xamante ne dinañ ko dinañ mën a wax ne lii information APEXI et li mu signalé mooy li nga xamné né c'est récent ñu convoqué et toujours si léthargie bi sax bala may ñëw ci lolu di rappeler ni si taxi APEX parce que ay taxi mo ñuy boole euh, maître Diène mu ngi koy sànq daf si bok si taxi né ne au moins dinañ réunir une fois le mois donc depuis plus d'un an APEX convoqué au réunion CD loolu léthargie la mais aussi sama papa mu ngi wax ne récemment convoqué nañ une réunion en catimini bokk ci ordre du jour réunion bi def coptation de nouveaux membres pour le bureau alors que le bureau bu fekkente ne ñoom. Euh, il est important de rappeler bureau quel est son rôle parce que c'est le CD qui est hein, qui est l'organe de décision bureau bi organe d'exécution donc hein, c'est décision prise par le prise par le par le CD donc vous faites qu'un CD jël na décision sax naam ñu war ko exécuter au niveau du bureau mais foofu aussi bu ñu amee ay wax seen biir sax je pense que ni bu ñeent amee fu ñu féete ñett am fu ñu féete la ñeent fa ñeent ñu féete xanaa la ñu war a jëfe mais pire ñoom ñu ne parce que am na ñeent ñoo xam ne ni ñu ngi bokk ci ñii d'accord ci contrat bi ba def ba bokk ci assignataires yi ñu ne nag léegi ah nañu. laaxatu si suuf parce que tamit surtout ay kilifa bu demee bay laaxatu si dëkk di def di def ay mbir yu sew yooyu noonu nga xam ne nekku si dëgg loolu mooy dëgg aussi loolu mooy ak dëgg donc ñu ne dañuy laaxatu dem seet ñu ñu convoqué ñu ñu wul ñu yëg ko dem taxaw te loolu pour wax ne ni ko Alassane Diène wax li laajul mbooloo man bi ma amee information bi. Euh, kenn laa si gis pour wax ne sax ñoom liñ ñu fooge ne ñun dañuy am ay groupe dañuy daje di koom bi ndax yooyu yëpp <laughs> kenn laa dajal si ñi nekk si fii nii ma ne ko mais dégg naa demee dafa am réunion ma ne ko dama ñaan ngir yàlla bul ñëw. te koo ma një ma gisal si gars nekk bu mu ñëw man rek je peux régler cette affaire la parce que bu ma demee man rek réunion bi du am affaire pour wax ne ni affaire laajul mbooloo parce que nekkal si côté dëgg rek loolu mooy dëgg donc. Euh, ñu convoqué seen réunion boobu noonu convoqué wuñu ñu ma synonyme d' exclusion la loolu pire ñu ne dañuy def cooptation de nouveaux membre pour le bureau maanaam daa xanañ ñi di leen seetal ñu leen remplacer loolu du dëgg du yoon moo tax sànq ma ne ñu ngi doon dox si njekk ak teraanga di jox ki euh, cër euh, ak déggal kilifa yi nga xam ñu ngi siy dox jàmm mais comme ñoom taxawuñu ñu ngi continuer di foncé moo tax aussi tamit ñun ñu trouver ne il est important ñu wax waa Yoff waxtaan ak ñoom jublu ñu si dara lu dul leeral ax aussi tamit mbir yi jaar fi mu war a jaar loolu moo tax xam naa fi ñuy tëjee jataay bi mooy dañuy jox suñu doyen. Euh, maam Alsaan mu euh, conclure ñu jataay bi donc di euh, sant ñëpp di gërëm ñëpp billahi sami ali mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim la xawla wala xuwata illa billahi al ali al azim asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp xam naa wax ji ñi nga xam ne ñoo di ko wax mat na rafet na maanaam tegu na fi mu war a tegu dama si yokk ay ay leeral rek ak def appel xam ne dañu dañuy yoofu démb ak tey démb ak donc waa démb ñu ngi fi woon ak waa tey boo demee si récépissé APIX yi ñu ngi signé mooy El Hadj seen Thierno Diop mu signé récépissé ak saltige El Hadj Bayna Mbaye ak président Frère Yoff El Hadj Youssou Ndir yal na yàlla yokk seen leer. kon daje mag la woon ak ay xale te beneen bi mooy mais APECSY du association du association mag ñi dañ ci taxaw zahir ak si baatin ba mu taxaw agsi fi mu agsi woon waruñu taxaw seetaan mu yàqu. man presque dix ans ngi ma nekk si série APEX mais APEX li si nekk ay anomalie dafa bari te dañ ko war a jubanti loolu ñi koy jubanti nag mooy xale yi maa ngay wax sànq maanaam nit bu dundee ba am 60 ans sa wàllu wéy na maanaam li des si àddina boo ko yàqal say doom moom lay wax naa maanaam ku ku iñaane say dono maanaam sa deewin ñaaw maanaam yoof dafa mel ni foofu la bëgg a maa ngi fàttali rek bi ñu dajee tànk am na benn ndomu tànk bu wax wax bu solo wax bu am solo mu ne jamono ji nekk nii jamonoy ndaw la jamonoy ndaw la mu ne mag mu muus moo si mën a jariñ loolu élection élection yi passé maanaam dëkk firnal bon damay oo xale yi APEX yi maanaam yéene ko moom parce que ñun suñu wàllu wéy na maa ngi koy wax sànq gars yi ne ma déedéet. man seede laa bokk mais bu ñuy dem damay bokk ci Thiès sortant bi du ma si bokk bu bu ñuy dem AG sax du dem gars yi dara man na ma déet doo taxaw ndir mbir ba mu agsi ngay bàyyi geddu ma parce que man doo taxaw ba bokka sa doom taamu kii sama doom la ma lañ ko tuddi maa ko ngénte kon man sama wàllu wéy na kon ñun nañu gore nañu gore li fi nekk si alal ñu bàyyi kaat ndaw ñi

ak banque bi bëgguñu mu dalaat ñun loolu boo boo ko tënkaa rek station sel ak banque bi si xayma rek bu si bu si maanaam ñi ngi ko loué bu ñu si amee un milliard yoof du si am sax lu mat cent millions loolu duñ duñ ko nangooti espace boobu de mille mille mille huit cent mètres carrés xaw six cent mètres carrés ñun dañuy dañuy fexe ñu waa yoof ñu exploité ko suñu bopp centre Mame Ibra Guèye bii mais ñoo ko tabax ñoom suuf ñoo ko tabax centre commercial Cheikh Ndiaye ñoo ko ñoo ñoo ko monté ñoo ko tabax woon espace bële du ñu nanguñu bazardé ka man maa ngi xale yoo yëpp maanaam nañu taxaw pour contrat boobu mu bañ a jàll boobu dañ koy annulé CD bi ñu xool naka la ñu defaat di gërëm ñëpp sant ñëpp vraiment di gërëm waa télévision bi. leen sant di leen gërëm na yàlla barkeel leen di gërëm tamit xale yi nga xam ne ñoom la ñu àndal maanaam ñoom dañuy jub dañu dëggu dañuy jubal gis gisee da baax lu nekk ñu ngi koy yàq yàq mosul lekk dërëm APEX APEX ku dem ku dem CD bu pare am nga 5000 nu ñu ngi koy euh, per diem moom du ko jël chaque tabaski dañuy jox ku nekk 50 000 francs moom du ko jël. mom dafa dugg mën nañ ko bay si ci APEX pour APEX yu yaxal APEX yi sakan manam maanaam na ni ñi nag dañuy top wax lo xamne xamuñu ci dara rek mais ñi amul dara lu leen lu leen nit mën wax dañu dëggu dañu jub dañu jubal ma lay wax nak mom manam jomay ak sonk ni ñu def bu ku ñet ba ku di sénégal nar kaa jubal jubantiku yéen xale yi def len lool yeen ci tollu yoof yéen lañu pour ngeen jubal ko jubanti ko asalaamaaleykum wa rahmatullah